di QG8 yaa mais Pape hmm. yowmal xiyaam hmm. ku dékki sa xel ci kenn rek lay dem hmm. te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa que yowmal xiyaam li muy rëy rëy kenn rek mooy dékki ànd ak sagoom mu yonent bi sallallahu alayhi wa Muhammad bi muy génn àddina dafa jàpp ba pare door a njàpp li mu deewaale moom lay dekkiwaale du sax ni yàlla may ma ma yeesalaat sama njàpp ndax bi muy faatu njàpp la deewaale mhm. buy dekkiwaat ëllëg njàpp lay dekkiwaale waaye pap bu ñëpp faatoo nag ba yowmal qiyaam war a taxaw xanaa kon dekki day am mooy njëkk a jug taxaw bu yàlla walee bufte bi alaaji pap kii njëkk a jug ci la mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga bu jógee taxaw dafay yëngal karaw ki ruusitu njàpp yi di dal gaañ moom yonent bi boo demee ma madinatul munawwara fa mu tëdd boo xoolee ci ndeyjooram abubakar a ngi tëdd ci wetam mais bu nee bëreet jug taxaw day fëgg abubakarin abubakarin jug mais yow ma yow ma yasiru xaw ma noo koy noo koy firee yow ma yafirul mar'u min axiihi noo koy noo koy firee wa ummihi wa wa saaxibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni xam nga luy loolu mooy bis ba nga xam ni ndey day daw doom baay di daw doom mbokk di daw mbokk ku gis sa moroom tiit kenn du ànd ak sa sago yàggal ci wujuhun gi seet <laughs> ay bu xale yi <coughs> ces jeunes la xam-xam laa feese dell fa tabarakallahu yàgg fa seet <laughs> nee na wujuhun <laughs> loolu ma neex yàlla poète la daal. mais kenn du moom papa. wallaahi yàlla poète nee na yow mal xiyaam da ngay gis kanam yu tiit. alaaji pap mm. kanam yoo xamante ni bii dañuy ànd ak njàqare. waaye bu nee bëreet alaaji pap dem nga fa fa mu tëdd ca madinatul munawwara. wallaahi fi lay dekkee ëllëg. ma fay dellu nii après koor gi incha allah. danaan bëreet jug taxaw. moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi alaaji pap bu jugee taxaw dafay fëgg Aboubacrine mu jug. waaw Omar ibn al Khattab jug. Mm-hmm. yàlla ni ko. ñëw leen fekk si ma fii ma nekk ma àtte leen. ñoom sax ñoo ko dar ca Médine nii. ñoo koy wër waaw ñoo ko dar nii. boo demee ca Madinatul Munawwara. Mhm. ñoo ko accompagner ñoo tëdd ci wetam. Mhm. mooy summa rida an abi bakrin xalifatihi man qaama min baadihi liddiini yantasiru mhm. wa an abi xafsin alfaaruq saaxibihi man qawluhu alfaslu fi axkaamihi umaru umara tëdd ci càmmooñam abou bakrin tëdd ci ndeyjooram bu ne bëreet nag yàlla da ko ni yàgg ñi la gëm ñëw leen fekk si ma fii ma àtte leen Mamadou bu yàlla woowee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ful bi topp ci ginnaawam hmm. Aboubacarin taxaw Omar taxaw Ousmane taxaw mu jiitu ne ca kanam yàlla ni ko ñëw leen gaañi bu ñu toppee nag ci ginnaawam di dox hmm. dañuy romb sawara hmm. ak ni ko yàlla programmé étincelle safara yi dañuy dal jullit ñi ñu tiit ñoom jullit ñi laaj yonent bi ni ko sawara wi di ñu dal étincelle yi lii yàlla di xambu ak nii mu koy xambee mbaadu pour ñun nee na ñool màkk gestu ni leen dalal leen seen xel amul benn xol buy bëgg sayduna muhammad di dem safara mm-hmm. alaaji pap njool màkkaay jiitu ful bi topp ci gannaawam mm-hmm. moom yonent bi yàlla da koy booleeg juróom-ñaar fukki junniy malaaka ñu escorté ko ñii taxaw côté ndeyjoor ñii taxaw côté càmmoñ muy dox ci digg bi. yàlla ni ko kilifa du dox moom dong. malaaka yi escorté ko alaaji Paap. moom de mu mel ni Macky Sall. muy dox ci biir. laa <laughs> ilaaha illallaah. te kat yowmal xiyaam ñëppay tiit. Ah alaaji Paap. Mhm. gaa ñi dañoo dékki tiitaange jàpp leen tax ñu dem seeti yontu yàlla Moussa. ni ko dañoo bëggoon nga ñaan intervention ak yàlla mu àtte ñu ku war a dem safara dem safara ku war a dem aljanna dem aljanna Moussa ni leen taluma leen alaaji Pape ñu jóge ci yontu yàlla Moussa Mamadou seeti yontu yàlla Ibrahim ni ko dañoo bëggoon nga ñaanal ñu yàlla intervention mu àtte jàmm ni taxawaay bi metti na te sonn nanu amuñu amuñu amuñu jàmm dañoo bëggoon mu àtte ñu ku war a dem aljanna dem aljanna ku war a dem safara dem safara Moussa ni leen taluma leen ñu seeti yontu yàlla Isa di ñaani intervention Isa ni leen taluma leen waaye danaa leen am ku ma leen joxoñ koo xam ni ni ngeen ñëwee ci man seen yaakaar tas am naa yaakaar ci ni su ngeen demee ci moom yàlla du tas seen yaakaar mhm. ñu ne Isa kokkan la mu ne leen koo koy bàyyi Fatima ak Roqaya ak Ummu Kalsuum yaakaari Seydil Haaji Malick soppi Seydina Muhammad alaaji Pape Rasulullaay day dox toog yontu yàlla Isa ñëw gaa ñi laaj ko ni ko kanay Muhammad mu joxoñ leen ko bi gaa ñi accès def délégation dañu fekk yonent bi tëdd ci piliyaanam ñu ñëw ni ko yaay Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ni mën a ñu ni ko yàlla dañoo bëgg mu àtte ñu ndax taxawaay bi metti na sonn nanu te yowmal qiyaam nit ñi dañuy tiit ba yàlla wàccee jant bi ba muy yuural ba muy ba muy baxal seen yuur gi ah da nga fa demoon ndax taxawaayu bis penc alaaj Pap bi ñu ñëwee ci Seydina Muhammad nag njol màkk ni leen luy seen soxla ñu ne ko dañoo bëgg yàlla atte jaam ñi ndax dañoo sonn ci taxawaay bi xam nga nu yonent bi def dañu bëreet jug taxaw ne ñi may leen ma ma julli ñaari ràkk alaaji Pap Seydina Muhammad dañu bëreet bëgg a julli ñaari ràkka yàlla ni ko Mamadou arrêtel sa julli yi la nga doon julli julli nga ko ca àddina la nga doon baax baax nga ko ci àddina fii yowmal qiyaam la tayaay tayaay patron bi xam nga lu xew sal tuuta wasfa tusafa mhm. laajal ñu jox la taxawal buntu aljanna di ramb koo bëgg ñu dugal ko ñu dugal ko mhm. ci sa daraja yow rasulullah muy lim alaaji Pape Seydina Mouhamad départ mhm. njol makkaay dox ba ak si buntu aljanna am na waa Grand fekk fa gardien bu ñu naan Ridwaan Ridwaan la gardien bi tudd mu ñëw ni Ridwaan caabi aljanna laa soxla Ridwaan ni ko balaa ma laa jox caabi aljanna damaa bëgg nga wax ma yow a kan ndax dafa am tur bu ma yàlla déeyoon ni ma su présenté woo jox ko caabi aljanna alaaji Pape Ridwaan taxaw ne yonent bi yow laay déglu wax ma sa bopp yaay kan xanaa laaj nañ yonent bi lu mu sawar njool màkk joxoñ boppam ni ko ana sayyidu walidu bani aadama ah. maay sangu nit ak jinne maay muhammadu rasulullah mu ne ko yow mii la ma yàlla ni woon boo présenté woo ma jox la caabi aljanna jël caabi aljanna moom Ridwaan teg ko ci loxo Seydina Muhammad mhm. alaaji Pape Ndiol Màkka ubbi aljanna ba aljanna ni kapp Rasulullah taxaw ci digg bi lu olof wax kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom barke ba yaay borom. Mhm. balaa kenn dugg aljanna Rasulullah yi njëkk dugg mooy taxaw ci digg bi. xam nga lu muy wax. ana aati baabal jannati yowmal qiyaama fa astaftixu fa yaqulu alxaazinu man anta fa aqulu muhammad bika umirtu an laa aftaxa li ahadin xablaka mhm. alaaji Pape ubbi aljanna ba ni kapp. ñu yaakaar ni ku ne la yonent bi di woo ndekete balaa rappel kenn ki muy njëkk rappel mooy ay soppeem ewa maanaam ñun mooy taxaw buntu aljanna moom yonent bi waa ay bi ne ana ñi ma bëgg fan sa club bi ñoo ngi nii ana ñi ma bëgg ñoo ngi nii ana ñi ma bëgg ñoo ngi nii mu ne aljanna ngoog dugg leen ewa alaaji pap balaa kenn dugg mu Seydina ma tey njëkk a dugg mooy vérifier appartement yi vérifier chambre yi alaaji pap te aljanna nag pap bàyyil xel ni am na dexu lem Hmm? am na dexu sàngara <laughs> man di rek <laughs> wala jabet <laughs> wala foofu kenn du fa feebar am na dexu soow eh, waay soow yelli taane dexu sàngara mais foofu dara du fa ëpp affaire. alaaji doo doo feebar. dexu sàngara borom pour ñun la ko la ko la ko defee. dexu sàngara bi yàlla programmé aljanna pour ñu jotul woon a mos ci àddina. ah moo tax jarta mos boo mosee fii doo mos fële. <laughs> allah kulli moom daal looy wax ba mos fii. mais bu ñu yow bu ñu bu ñu bu ñu demee nag entre nous di nga naan wala doo naan. fële. fële damay naan fële di laal sa whisky rek. non mënta ñàkk. <laughs> alaaji Pape aljanna. bëgg naa la ba pare mais kon aljanna tat ngay def kon. mais vëpp lay def aljanna waaw waaw naan sa ñaari whisky rek. mais rek Pape attention. <laughs> Ah. sangara aljanna nag doo màndi de. ah bokk la yii. yii ngay tërëf. Ah, <laughs> ok ok xam nga yii boo màndee ñaari yi ngay ah. da ngay neex. da ngay yëg mais doo doo <laughs> fii boo <laughs> màndi mais nag xoola sàngara boo dul màndi mu amul njëriñ nee ma rek fee dañ fay màndi noo kenn du yëg pap <laughs> àjjana doo tërëf quoi mais pap bu amoon yëg àdduna tukki <laughs> dëgg la de mais fii dëgg la de ku fi mos doo mos fële xanaa nga tuub dëgg la de na yàlla tuub naa waaye nan màndee ca gën boo màndee demal tëddi yàqal ñu naanagul bàyyi ñu festival salaam daa war a commencé léegi nii gaawal àjjana. <laughs> alaaji Pape kon àjjana dafa neex nag franchement. mais Pape aljanna li ca neex xam nga mooy lan. Mm. yàlla nee na laa yasmauna fiha lagwan wala tasima lu ñu teree fii rek ñu ciy daw dagan na fële ci. bakkan dagan na fële alaaji mm. Pape. Mm. alaaji Pape aljana amul stress. alaaji Pape aljanna amul coono. waaw waaw alaaji Pape aljanna amul yanuloo attanul. lépp lu aljanna amul feebar. daggan na fële amul entrée. amul problème. macha allah la ca dàq mooy góor gu nekk yàlla dana la may lu ëpp juróom-ñaar fukki jabar. ñoom jigéen ñi nag lu ñu leen di may <laughs> parce que ñu ngi koy réclamer. Ah benn jëkkër lañuy am. kese. góor gu ne am juróom-ñaar fukki ju junniy jabar. xanaa oh. féministes yi du ñu jokkoon boobu ñoom Gabriel kan moo tax c'est pas normal. <laughs> moo tax Pape jigéen juy bañ wujje fii ci àddina. Mhm. jàppal ni yow mal xiyaam boo ko dee bañ da ngay sonn boo duggee mhm. àjjana. Mhm. ndax jigéen booy bañ wujje ba dugg aljanna. yow da nga am soixante-dix mille wujju. biir aljana <laughs> soixante-dix mille wujju. nga war ko am biir aljana alaaj Pape. ndaw xeex wu bëri. <laughs> ñoom àjjana amul werante. ñoom àjjana la ñu nar a amul coono. te Mamadou li ca dàq mooy aljanna loo xalaat yàlla indil la ko. jigéen ñi ñaata wujju la ñuy am. soixante-dix mille wujju soixante-dix mille <laughs> baax na ci ñoom. alaaji Pape bu ñu nekkee biir aljanna alaaji Pape. Uh-huh. ba benn vendredi. Ah, yàlla ñëw seet si ñu. waaye nag xadiis yi dañu wax ni. Uh-huh. yàlla buy seet si waa aljanna bisu àjjuma. Uh-huh. ñi muy njëkk a recevoir mooy ñu yaru. maanaam man sama classe gi. <laughs> yow moom yow léegi mu jëriñ recevoir ko. alaaji Pape. yàlla nee na nit mën naa lu ba dugg aljanna. dëgg waaye gis yàlla moom pour nga def ko foog nga yaru. te kat pap aljanna ay apartement la. Mm-hmm. soo ñëwee ci bunt bi dañ la naan iqra wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunia mm-hmm. fa inna manzilataka inda aaxiri ayatin taqra'uha mm-hmm. Mamadou boo ñëwee buntu aljanna ëllëg taxaw ascenseur bi day taxaw ñu ni la loo mokkal ci alquran rek niveau boobu nga jëm ah boo soriwul ci alxuraan yam premier appartement. mais am na ñuy dem rez-de-chaussée ah. ñi jàngul dara ñoo yem rez-de-chaussée. la gars yi <coughs> li dafa neex ba nga xam ne tey ñu koo dagg ba suba. alaaj pam nañ ko dagg. li dafa neex de. ñi jàng lu sori nag dem aljanna ca kaw. kon yow da nga dem ay deuxième étage. troisième ma jëm Firdawsi. non ah yow troisième étage. yow xaw yow waxuma la réseaux sociaux mais entrée bi. fa lañ la may defal fa nga jëm yow <laughs> néegu gardien. léegi nag firdaw si alaaji pap mooy dernier appartement. Mm-hmm. ca kaw. Mm-hmm. fa la Seydina Muhammad di dëkk. Mm-hmm. fa la ko yàlla logé. mais bàyyil xel ni yonent bi nag daf ni woon. fa ma jëm ca firdaw si. Uh-huh. ña ma fay dëkkaaleel mooy ñi ma sopp. képp ku sopp yonent bi yàgg moo may dëkk. dafa toog ak saxaaba yi ba mu yàgg mu yëngal boppam moom yonent bi ni cëy sama soppe ya saxaaba yi ni ko boo waxee loolu danga ñuy jaaxal xanaa ñun soppuñu la yonent bi ni leen yéen damaa jëf ci seen kanam dundandoog yéen ngeen gis ma mhm. waaye ñi ma sopp dëgg dëgg dëgg gisuñu ma tegal tegal foofu sa baaraam ba suba duñ gis ku ma gis mhm. duñu gis ku gis ku ma gis gis nga lii dafa neex te fuñ ma tuddee ñu ne sallallahu alayhi wa sallam lii dafa neex Oustaz nañ ko à suivre ba suba <laughs> parce que neexaay gi ci euh, gi ci parti bi ngay waxtaane euh, duñu ko mën a gàttal te gan yi ñu ngi ci ginnaaw ndax tey euh, soirée spécial Yaw Saas euh, festival salaam mhm. lañuy ñuy proposé euh, téléspectateurs yi xam nga li ma ni festival salaam pour ne pas dire Youssou Ndour fexe na ba jàppale ñi nga xamante ni ñooy yëngu ñu tuddee leen ci diine ji mhm. tey ñu ngi wër àddina di def ay tourne xam nga bu njëkkaan loolu ci waykatu àddina yi lañu ko xam mhm. waaye léegi képp kuy cant képp kuy sikkar képp kuy conférence c'est-à-dire ñoom ñëpp dañuy wër àddina di jaay li nga xam ne ni moom la ñuy def muy sikkar alaaji Pape bari na ku nu xam ci réew mi mm-hmm. bari na ku say bunt ubbeeku ci réew mi mm-hmm. yàlla ak président yu Ndour la wallaahi alaaji Pape président Youssou Ndour li mu yéene boppam moom la yéene képp kuy tagg yonent bi kenn du moom alaaji Pape président Youssou Ndour mi ngi jàppale ñi ñiy tagg Seydina Muhammad mm-hmm.